permettre tey jii ngeen nekk au pouvoir euh, cette manière d'opposer bi ngeen amoon euh, naturellement wala euh, waru leen topp au pouvoir tey jii nii cette cette différence est-ce que natt ngeen ko ba xam ne tey jii les les rôles ont vraiment ont véritablement que ñun aussi ñëw ñu fi di fayanto ah. peut-être que régime passé bi ñoom benn instance c'était comment faire pour éliminer Pastef ils l'ont essayé peut-être yàlla moo leen ëpp doole mais ñun nekk ñu fi. dëgg la am réduction des comptes parce que loo xamante ñëpp ko bokk képp ku ci laale quand mhm. war nga war nga delloo parce que li ñëpp bokk quand même kenn waru ko kenn du ko fowee. Mhm. donc képp koo xamante ni laale nga ci loo xamante ni du yoon. je pense que yoon dina def liggéeyam du ñu def nag chasse aux sorciers on le mhm. mais quand même même ñun suñu biir képp koo xamante ni dénk nañ la ay ndooma tànk et ni ko ni ñu ko ni ñu ko yoree jaaduwul. le président a dit et son premier ministre ñu protéger kenn. Mhm. donc ñun exemple ci ñun lay commencer d'abord avant muy demee maintenant nag régime bi passé gis nañ ne rapport yi commencé na génn parce que ñoom ñoo si tegoon seen tànk ça fait cinq ans rapport génnul donc génn wan nañ ne sénégalais yi ñii suñu leen mayaatoon troisième mandat avec leur candidat donc ça veut dire que Sénégal ci boppam la ñuy jaay. mais mais mhm. Dieu a fait que euh, ñun ñëw nañ au pouvoir donc ce qu'on de corriger. et may Sénégal wax sénégalais aussi jaruñu yàkkamti parce que bokk de pays se sont faits en trois décennies je peux donner l'exemple des Émirats du Dubaï. Mm -hmm. c'est en trente ans la ñu la ñu la ñu la ñu nekk ci raay développement donc nañu teg dëkk bi ci raay développement. ñaax nit ñi ci liggéey. parce que mhm. liggéey rek moom mooy moom mooy. ah mais par rapport aux malversations du régime précédent. Mhm. Euh, bëggoon naa xam l'exécutif lan moo ci wàllam tey nii parce que du jour au lendemain on retrouve tous les rapports ci mbedd mi euh, nit ñi di gis di dénigrer di wax euh, cette forme aussi est-ce qu'elle est la bonne déjà rapport yi benn la ci mais ñaar aussi le littoral le foncier ak le président Diomaye en mission commando à sur un ton assez menaçant def liggéeyam waaw mais rapport yi rapport dafa war nekk lu public dañ ko war a ñëpp jot si parce que moomeelu askan wi la te ñun dañu am chance que ñaar ñu nekk ci kaw muy le président Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko c' est des inspecteurs des des, des domaines. Mm-hmm. donc ñooñu quand même wàllum suuf wàllum fiscalité réeru duñ ko réere donc mal mal malheureusement pour le régime passé que ñi ñi fi ne moom affaire mu ne maintenant nag il est temps que ñu ñun askan Sénégal moo ñu ñor ñoo ñu fi teg. Mm-hmm. donc il est temps que ñu informer askanu Sénégal wax leen ñii lii lañ fi def lii lañ fi fekk maintenant ñun nag ñun fii lañ leen jëmee ak suñu projet. transparence moo ko moo ko lal nee nga sànq nekku leen pour def ay chasse aux sorcières. Hmm. Euh, taxu leen a jóg mais transparence rek moom moo ko lal. tout à fait parce que ci transparence lañ mën a defee lépp askan suñu xamee li xew rek jiite leen dina yomb. Hmm. problème bi mooy nébuleuse yi am. naan affaire de homme d'état ay secret d'état yooyu foo ko dégg waaw yooyu moom je pense que en Afrique ay caaxaan daa je donne toujours dans l'exemple des pays scandinaves Norvège Danemark foofu Euh, le gouvernement informe à temps réel ministre bi mën nga xam ñaata lay fayee ko. Mhm. yan mooy privilège yu ñu ko jox te loolu aussi ñun ñoo ne jox leen ñu ñu defar donc il est temps que ñun ñi ñun ñuy jox ñuy jiite war nañu won ne ñun fii la ñuy teg suñu tànk dans la plus grande transparence mhm. parce amee nébuleuse rek ça veut dire que fu ñu jëmee askan wi euh, baaxul ah. la preuve mooy rapport yi bi ñu génnee ñëpp a dar seen gémmiñ ne ah ndeke lii nii la demee waa ndeke lii amoon na fi maintenant par rapport ak seen i promesse de campagne par rapport ak seen i engagement <coughs> le premier mois euh, déjà l'appel à candidature pour yenn postes yi am na ci lu waroo ak li ngeen ñu waxoon benn ñaar aussi euh, ceux qui doivent démissionner des postes yi nga xam ne dañ ko cumulé tey jii nii dégg nañu président Sonko dégg nañu euh, ku ci mel ne Birame Souleye Diop le maire de Sandiara mais pour le reste on n'a pas trop entendu que ne ne ils ont lâché le morceau. waaw mais euh, comme ni ñu waxee appel à candidature <laughs> c'est c'est normal l'exemple de du rectorat de de Thiès. de mm-hmm. de Ziguinchor appel à candidature on a dit appel à candidature pour certains postes peut-être certains postes techniques mais actuellement yoo xam nga appel à temps bu muy jël. Mhm. donc loolu alors que y a beaucoup d'urgence. Ah, c'est vrai. c'est normal que ñun au sein de PASTEF <laughs> on a des cadres on a des compétences. justement pourquoi ñëpp a waroon. non waroon dañ ne certains postes l'exemple du rectorat de de Ziguinchor appel la. Mhm. yow mii fekkee tu les compétences qu'il faut mën nga dem postuler su fekkee yow yaa gën a yelloo poste bi ñu jox la ko. Mhm. maintenant loo xamante ni ñun am nañu potentiel bi am nañu cadre yi te leen di jox post yooyu. Mhm. donc euh, loolu quand je pense que waroowuñu ak Sénégal parce que aussi c'est un mandat de cinq ans. Mhm. doo ñëw rek def table rase affaire aussi du baguette magique. doo waaw il faut ñu accompagner leen. xool mhm. lan moo xew def yenn audit xam fan la ñu teg suñu tànk. voilà parce que on est déjà en état jeune. Uh-huh. donc de ce fait mënuñ ñëw rek euh, efface ñi fi nekk ñëpp. ñu ko dañoo jàpp ne. peut-être c'était de dana wax mën a expliquer. Mm-hmm. ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xam moo ko moo ko waral maanaam xam na moom exactement ce qui se passe euh, ni état di dox di doxee moo waraloon loolu. non ñàkk ñu xam parce que ñu bëri ci Pastef ils ont exercé l'état nekk nañ ci nekk nañ ci administration euh, au niveau du Sénégal donc xam nañ bu baax nan la état di fonctionner maintenant nag. on peut pas tous les postes dañ koy jox ay ay politique mm-hmm. am na ay sénégalais yoo xamante ni ils sont pas politiques c'est des mm-hmm. technocrates ñooñu soxla nañ seen expertise ñi ñi ñi nekk ci diaspora par exemple ñëpp mm-hmm. nekkuñ poste politique donc ñooñu su leen Sénégal soxla we dañ leen di jël ñu liggéey réew mi maintenant nag yenn postes yi du ñàkk nag ñoo xamante ni ñi ngi woon ci parti bi. li yoon sax mooy ceux voilà sué ceux qui ont mouillé le ko ñu confier leen la confiance avant tout. tout à fait moi je suis d'avis avec ça. exactement maintenant par rapport ak euh, li ñu doon wax sànq ci le cumul loolu aussi c'est une question boo xam ne tey jii dab na leen xam naa ne ceux qui ont le morceau le font difficilement. Ousmane Sonko je le vois mal bàyyi mairie Ziguinchor xam ne y a un sentiment affectif bu ko luyee Birame Souleye je le connais il bi maanaam est non tu sais de fonction nekkul ci texte parti Pastef promesse bu président Ousmane ko defoon Sénégalais en 2019 mm -hmm. et donc moom c'est c'est un homme de parole mu ne moom gëmul ne Sénégal li fi nekk ci ay compétences ay cadres benn nit occupé poste de un dina tax nit ki du efficace mm -hmm. maintenant fekkee compétence yaa ngi moom déjà il est maire de Ziguinchor il est premier ministre ses tâches de premier ministre rek ça lui suffit largement su amee keneen ku mun occupé poste boobu ñu occupé Birame Souleye pareil mhm. donc ñooñu pour le moment ñoo nekkagum ci gouvernement bi démissionné ak le maire de Sandiara démissionné seen poste électif on attend d'autres démissions waaw maire par droit ko wala ma amul information non non bien sûr parce que ils ont ils avaient un délai de un mois donc je pense que fan di ñëw ñoom ñëpp dinañ démissionné comme ça ñu jublu ci liggéey ah, vous êtes maintenant au, pouvoir et on a vu ci benn euh, waaw mais normal parce que c'est c'est un parti boo xamante ni parti bu ne defar laaj réorganisation parti bu bu bees la on est un parti contemporain am nañ ko dix ans lañ amagum am na yeneen instance yeneen mouvement yi dugg ci parti bi mhm. c'est normal que ñu réorganiser waat parti bi à la base donc loolu la ci jublu te aussi bul fàtte ni président Ousmane Sonko bëggoon na def nemmeeku tour à l'époque mhm. gars yi xañ ko ko fu mu dem gendarme yi dar ko ñu koy jabul di ko empêcher nemme maintenant c'est le moment dem delluwaat ci Sénégalais yi jaajëfal leen njukkal leen ci victoire bi ñu am. est-ce qu'il doit avoir ce temps premier ministre. bien sûr pourquoi pas il a peut-être il aura ses week yoo xamante ni il fera étape par étape dem dem dem ju dellu ci ci base bi waxtaan ak ñoom loolu moom je pense. en espérant aussi que d'utiliser la preuve bi muy def euh, réunion avec son bureau politique il a pris son véhicule personnel ses gardes rapprochés yu mu amoon. Mhm. à l'époque donc utiliser benn mot APA donc ñun dañoo woote. mais dans l' état euh, mën nañu wax que ne ko utiliser pour euh, son propre intérêt loolu mën nañu ko dénoncer bu ko defoon. bu ko deful aussi sécurité day day nekk en jeu maanaam c' est le premier ministre même bu fekkee dafa bàyyi la sécurité bi ko état bi affrété euh, les véhicules yi nga xam ne am na sécurité jël li nga xam ne moom ngeen moom waa Pastef est ce que c' est prudent aussi. non mais gisoo la preuve ñun dañ ne képp ku nekk président nekk euh, mënoo occuper poste si passé la preuve Diomaye président Diomaye Faye était le secrétaire général ah, du oui. parti mhm. bi ñu ko bi mu ñëwee à la magistrature suprême nekk président de la république dafa démissionné postam secrétaire général Ayib Daffé honorable député moom moo ko remplacé mhm. maintenant avec le président Ousmane Sonko il a une double casquette parce que il est premier ministre mais aussi il est chef de parti donc c'est normal ko mu dem saytu les instances de base waxtaan ak ñoom loolu aussi je pense kenn du ko bañal. Mm, et cette tournée dans la sous-région ay pays yoo xam ne lu régime démocratique moo fa nekk loolu aussi am ci mën a wax. nee nañu dëkkandoo mooy sa mbokk bu ñëkk ñun mënuñu ñëw au pouvoir comme niñ ko waxee ñu ñu wër ñëpp ñu dem saytu dem nañ fii président Diomaye dem na Mauritanie. Mhm. dem na Gambie. Ah. Guinée Bissau Côte d'Ivoire dem na Guinée Bissau tey dem na Côte d'Ivoire. Mhm. c' normal que aussi président Ousmane Sonko demal ko ci yenn yi saytu. waxtaan mais qui y le président de parti wala c' est le non c' le président de parti qui y va. Mhm. dem waxtaan parce que aussi bu leen fatte ne PASTEF xam nga dañoo changer acronyme donc on est un parti africain. oui du Sénégal pour euh, le travail l'éthique et la fraternité. donc mm -hmm. on dit africain on a beaucoup de sympathisants je donne l'exemple du Tchad avec Succès Euh, en train de faire des élections avec euh, euh, le Déby mhm. donc am na ñëpp Sénégal e, e, instant bi vitrine la ci Afrique mhm. c'est normal que ñu lu mel noonu mu def tache d'huile au niveau de la sous-région. Uh ah -huh. président Ousmane dem waxtaan ak ñoom parce que y' a beaucoup de formations politiques j'ai même entendu PACTEF au niveau du Cameroun. au niveau du mhm. Comore. Mhm. donc yooyu noonu c' bon ñu dem fa waxtaan ak ñoom. parce mais la question parce que aussi voilà. bien que ngeen leeral ko pour nit mën a xam. Mhm. Euh, maanaam euh, Ousmane Sonko dans la sous-région ci pays yi nga xam ne régime militaire moo fa am ñan lay dem rencontrer les dirigeants de ma la Guinée suñuy dëkkandoo lañ. Mhm. Ah, euh, Mali suñuy dëkkandoo lañ te soo seetloo maliens yi pour la plupart peut-être mën na nekk politique mais également économique tournée parce que euh, il paraît que li li transité fii ay marchandises malien di dem kii c'est presque deux cent milliards par an. Mhm, mhm, donc loolu noonu. quand même arrivé na à un moment donné ces pays là CEDEAO daf leen a boycott diggante bi neexul woon donc c'est bon que mu dem dox njekk waxtaan ak ñoom ne leen que vraiment régime na même fekkee ñoom ay putschistes lañ mais seen population accepté nañ leen. Mhm. malgré que ni ñu ñëwee. au pouvoir malgré que ni ñu ñëwee au pouvoir ñenn ñi contesté nañ mais tant que la population est d' parce que le pouvoir au peuple peuple yi moo yor pouvoir. Ah, certains nag y voient. Mhm. benn divergence de point de vue entre le président ak premier ministre parce que le président il est allé voir les présidents démocratiquement mhm. élus le premier ministre comme on dit comme ni président Macky Sall doon wax ah, ñoom ñaar moom c'est comme Burok Sow vraiment y a divergence seen biir mhm. ku nekk lépp looy def bi nga consulter keneen ki donc ñu ñaan yàlla déggoo boobu wéy ba vraiment fi ñu bëgg yóbbu Sénégal. Ah, xam nga la vous n'êtes plus dans l'opposition vous êtes maintenant au pouvoir. Mhm. est-ce que seen yenn parti du leen topp parce que Ousmane Sonko tempérament am ñëpp ko xam. et au lieu de de parler à la France euh, officielle. il parle à la France insoumise avec l'invitation de Jean-Luc Mélenchon loolu aussi ay mbir la xam ne diplomatiquement mën am incidence après. bien sûr parce que yow bi ñu nekkee ci ay tolof tolof Jean-Luc Mélenchon France insoumise. Mhm. ci ci euh, assemblée nationale fan dañoo taxaw foofu défendre ñu ne ni président Macky di def euh, président Ousmane Sonko du yoon jaaduwul donc ñooñu suñ ñëwee au pouvoir rafet na ñu ñëw waxtaan ak suñu parti. Mhm. delloo leen jukkal. je salue de passage le ministre de la communication muy Aliou Sall moo mhm. xamante ni lu ci ëppoon ci lool su diggante ak Mélenchon moom moo ko doxoon mhm. donc c'est c'est intéressant que Mélenchon ñëw fii delloo ñu njukkal boobu noonu ñu nit ñu remercier ko par rapport moment bi nekkee ci difficulté. mi ñu doon défendre. Ah, docteur Seydou Diallo vous êtes un jeune boo xam ne vous êtes longtemps euh, battu pour les libertés pour aussi l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais vous êtes au pouvoir un mois bëriwul c'est vrai. Mm-hmm. Euh, yéen a aussi di corriger les erreurs du régime précédent mais les Sénégalais attendent impatiemment aussi pour que leurs conditions soo xoolee acte ñu njëkk a mooy le foncier le droit à à à l'habitat c'est un droit euh, constitutionnel nit ku ne ku juddu war nga am dëkkuwaay mm-hmm. mais gis nga régime passé lu mu def waaw dignité la mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu noonu correction bu ñu te nee nañ nañ arrêté redistribuer waat les choses là parce que fa nga dëkk yelloo nga fa am dëkkuwaay quand même mais su demee bi ñu publier affaire da ngay gis ña fa ña fa am kër sax dëkkuñu fa ils sont la région voilà autre chose mooy les licences de pêche Sénégal tolloo na foo xamante ni lekk fi ceebu jën bu baax Mm-hmm. amul mais temps yi gis nga actuellement nappkat yi am ne la pêche ça génère plus de six cent mille emplois mm-hmm. ñu si bëri bàyyi woon nañ loolu mm-hmm. jël seen gaal jël géej gi dem donc suñu euh, revoir contrat de pêche yooyu gis nga nit ñi moo li commencé nañ kontaan te loolu ça génère beaucoup beaucoup d'argent et côté même alimentation côté santé parce que les ressources halieutiques c'est une source protéinique donc loolu soxla nañ ko baax na baax na si nit su demee nag ba ñu lépp lu baax ñu jox ko tubaab bi donc ça veut dire ñun bëggul suñu bopp actes yu mu posé la et aussi d' autres actes yoo xamante ni au fur et à mesure. ah ce qu' on dit mooy que ne Macky Sall une au pouvoir jours wàññi na dund gi yéen qu' la chose. non mais xam nga actuellement on est en xool. yàlla tabaski qui s'annonce hmm. teg na ci jéego yu besoin énorme waaw besoin énorme 750 000 donc nee na taxi pour dugg Sénégal bàyyi nañ ko donc loolu na tax. le mouton sera accessible. Mhm. peut-être que ñoom itam ñu am xel wàññi tuuti jaaykat yi comme que taxi wàññi na que au moins chaque Sénégalais puisse avoir son. mais justement est-ce que am poigne boobu ci ci ci ci jaaykat yi parce que souvent avec le régime précédent daan nañ def ay wàññi mais du am suite. y a pas de contrôle maanaam y avait pas le respect de ce qui est dit par l'État c'est ce qu'on attend de ngi ñi ngi ñi ngi appliqué y aura un suivi quand même. loolu moom c'est allah dinañ ko def. parce que euh, nu ñu koy waxatee ñun sénégalais lañu fi toogal. Mhm. sénégalais ñoo tax ñu ñëw fi donc on a de compte à rendre personne tant que sénégalais yi ngi naan gonga li ngeen fi ngeen teg seen tànk baax na donc ñun euh, suñu xel daal. ñu ngi lay bu baax a baax. waaw man maa leen di remercier di euh, jàllale benn message par rapport à mes ex co-détenus ñu ma nekkaloon Rebeuss mhm. surtout la chambre 15 ñoo xamante ni le chef de chambre chef Thierno Hamza Diallo ñoom Saloum ah, ñoom si ñi ma fa nekkaloon ñëpp ñoom mbay mhm. ñoom Paba maa ngi leen di remercier di ñaan aussi que l'actuel ministre de de la justice mu allégé détention yu yàgg yi rëbës mm-hmm. metti na trop di remercier aussi waa infirmerie rëbës nga xamante fa laa nekkoon major mm-hmm. Diallo doon servir foofu voilà doon servir pour les autres mais aussi di remercier major yi fa nekk yëpp affaire yi metti woon na mais quand même di remercier aussi garde pénitentiaire condition yi ñuy liggéey metti na trop je pense que régime actuel dina ci jublu mm-hmm. allégé leen yokkal leen ay prime de risque nga xamante ni ils seront à l'abri du besoin. jërëjëf mu doon lu am solo un message très important. docteur Seydou Diallo ñu koy sant bu baax a baax ci disponibilité mais également ci a yi di daje incha allah euh, suba 19h30 ak beneen gan laataa loolu le 20h c'est dans un instant ak Tabara Diop Germaine Diouf jaa jëf merci beaucoup.